Uh laan bikum li ngeen bind ci sëriñ Tuubaa du dëgg fa ngeen a sosal ku tedd ki yow Ibadeer Caam yaag ñi nga àndal gaaw leen nu mu gën a gaawee ngeen effacé ba pare xotti lakk seen téere bi ndax baaxut santul yàlla du samay kàddu sëriñ Bass Abdou Khadre Mbàkke yor kàddu yoonu murit moo ko wax ba tax sursu aay yéen a kaay na dëkk bu sell ba Tuubaa Mbàkke mere nañu lool Ibadeer Caam ak ñu ñu àndal ndax seen livre boobu ñu tuddee histoire générale bu Sénégal fañ faa bind lu merloo Tuubaa sëriñ Bass Abdou ne liñ bind moo garaaw mën naa yëngal réew mi yee fi fitna te ñun yoonu murit seen livre boobu reconnaître wuñ ko li ma leen di digal nag ibadeer ak ñum àndal mooy nañ dem ci këru diine yëpp kilifa diine yi tariqa yi wax ak ñoom jël xibaar yu baax ya bind ko suñ ko deful nag ñun danañ wax ak taalibe yi comme ni ko sëriñ Abdoulaye Hadj defee woon vox populi ne ginnaaw njabootu maam alxaaji Abdoulaye Niass ba ca Kaolack ndangaan xamee lu leen naqari ca bind lu du dëgg ba nekk ca liiwur ba njaboot ak njëgéen ca Thiès def li ni mel laayeen yi defaat li ni mel léegi nag Touba ñoo def li ni mel le quotidien yéen a na Touba kay fa ñoo corrigé Iba Der ak ñim ànd ak critique yéen a kaay dëggal ko les échos yéen a kaay na may leen ma ma wax leen li gaañu bind ba tax Touba mer ayaw seetal fa ñoo bind ne Serigne Mame Mor Anta Sali Mbàkke toon temps pour jàngale ñu ne déetewaay ñu yokkaat ci ne ku tedd ak Serigne Touba fa doon dund charia l'islam ju sell laata maam Cheikh Ibrahima Fall di ñëw loolu lan ngeen ci mën a déggee am na lu ñu waxut yu garaaw la mu wax moom Cheikh Madi Ibrahima Niass mooy ma ngay dànkaa foo ko artu gis nga livre yi nga xam ne moo bàyyeekoo ca tubaab ya mënta nekk mukk sukkandiku sukkandiku kaay ci wax wala bind histoire Sénégal li ni mel nag ba koy wax ci atum la woon booba coow li ñëwagut ca rajo Alfayda ba ñuy samp commission bi ci la leen alerté woon dànkaafu leen ñàkk a bàyyi xel nag moo leen jural tey li ni mel nay leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ablaye Wade ak njiit réew Macky Sall fa ñoo nar a ci bés bi ñu nar a daloo jumaa Masalikul Jinaan ja wal fajar yéen a kaay ñi ko xamal doonte Wade moom a waajal soppi wàllu jokkalante ga ca pale ba moo njiitiram Macky Sall ab stratégie bu bees moom la lal la sala yéen a kaay ñi ko xamal enquête yéen a kaay na ko Macky kay ma ngay wàllu ay ñoñom wallu communication bi dara lañu xamut ay erreur rek les éco yéen a kaay na ko fekk mu jot ndax jokkalante ga ca pale ga carte gu jaxasoo la wala sabar gu tas ku jóg wax te ay erreur rek la ñuy wax ñaareel kii mel ni nag ku def erreur bu mag moom mooy Racine Sy ba ñu wax na daal moo doon nas ay pexe ngir jëlee njiital IPRES ca bopp kër ga si mbeng waaye Dakar Times nee nañu mujj naa lajji ay pexem sottiwut de É o Set Sénégal fa xoote ndaje mu mag alxames bi weesu ngir ñu kajj dàq si mbeng waaye kilifa yee ko war a def kenn ñëwut ca ndaje ma ndax dañoo dem ba mujj xam ne xibaar yi mu fi waxoon naan Macky moo bëgg dàqulu si mbeng loolu dara ca amul pexem noonu la te ku sa noon di sëlëm da nga yéex a sedd ci génn ba set wecc ca kaso ga mooy journaliste Adama Gaye enquête yi na kaay ñu ko xamal l'observateur dëggal ko lam njëkk a wax nag moom journaliste bi mooy la ma doon bind tey laa koy gën a bind man damaa xam gàcce suñu réew ak yoon ni muy ndax man fañ maa téewoon otage di mel ni ab criminel daal buñ jàpp te ko fenn waaye dinaa ko ñàkkante ak ñoom ba mu saf sàpp ñeneen ñu ñàkkante mooy Ousmane Sonko ak Mamour Diallo 94 milliards ya wal fajri yéen a kaay nee na Assane Dioma Ndiaye moom Ousmane Sonko la ànd ak moom la jox dëgg ayaw seetal Mamour Diallo moom dañ ko tuumal liñ ko tuumal bu fekkee defut ko këpput kees na ko porte plainte waaye ba léegi porté wut plainte junj nag doy na borom xel la mu ñu xamal moom Babacar Gaye mooy xalaatam gis-gisam ca PDS ak wallu bi ñu war a wallu Ablaye Wade nee na dëgg la ci politique te lu na ma man Babacar Gaye dama gis nga Karim Wade maa lañ ko gën a xam de tàggat yaram jongante yu neex dendu Europe Chelsea Liverpool Real ak Barça ñoom ñaar ku nekk am nga jogante yu métti stade yéen a kaay ñi ko xamal li mu ñu xamal moom record yéen a kaay mooy ñaar téeméeri million moom la Sénégal di amee ci jongante xaritoo ak réewum Brésil nar am ci làmb ji mooy ñetteelu ndaje diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 sunu làmb yéen a kaay ñi ko xamal enquête yéen a moom di ñu xamal na nawet bi yàlla ju taw mbënd meeg ndox mu bari mi tax na fi mu toll nii paas bi fa yokku ñetti yoon nag boo daan fay téeméer léegi ñetti téeméer ngay fay ndax oto am na yenn quartier yi duñ fa nangoo dem waa mame li nga waxay dëgg ñëwal Kaolack nangaam am na yenn quartier yi taximaane dañ naan la deew ma ak loo leen mën a fay nag su ko defee ngeen dellu cosaan dugg seratu mbaam ak fas yi donte ñoom sax yokk nañ di